Père ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbégte ak contentement ñoo seet la fii. waaw euh, man de sawar naa ci euh, ku ma wax waxi football dama ci sawar parce que dama yaakaar ni football moom lu ci nit def man lay jàppale te yéen wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla euh, sunu sama sunuy famille ngeen moo tax ma may sawar toujours bu ngeen bu ngeen ma soxlaa ma ma ma teew ci li ñuy def rek. Père 11 ans 11 ans d'absence Sénégal def retouram ci CHAN bi. premier entrée mooy baptême de feu mu réussir ko face ak Côte d'Ivoire mu gagné ko un but à zéro ban jàngat nga ñu mën a defal ci match boobu. waaw jàngat bi ñuy mën a def mooy xam nga dañoo yàgg di wax ne euh, nañu kañ d'abord formation des formateurs parce que euh, boo ko boo ko takkee da ngay jàpp ni kiy formé moom ci boppam bu xarañul mënut a mënut a détecter d'abord. joueur bu baax wala bu baaxul mënul tam bu fekkente ne gis na profil bi gis ni am na talent bi lañ ca war a yokk moom du ko xam ba nga xam ni day nekk produit fini parce que produit fini mooy dem équipe nationale équipe nationale amul du jotu formation formation dañ koy defee kii ki club yi euh, euh, centre de formation yi euh, ñooñu ñooy génne li nga xam ni moom la ñuy mooy nekk suñu jumtukaay looloo tax ma jàpp ni Sénégal Afrique sax Euh, boo seetaanee compétition bi da ngay gis ni y a un nivellement par le o te loolu li ko indi mooy non seulement une bonne organisation parce que sunu dirigeants yi gëm naa ni léegi am na am na xam-xam bu ñu am ci approche bi premièrement deuxièmement sunu état yi jël nañu en considération euh, euh, sport en général et football en particulier euh, looloo tax ba ñu euh, ñu am yaakaar ni footballu Afrique léegi tollu na foo xam ni Euh, amul amatul euh, lenn loo xam ni danañ ko def te du ñu mën a xool nit ñi les yeux dans les yeux euh, boo seetaanee compétition bi nga xam ni ñii ñi leen di tàggat mën nañu mais ñii tàggatu tam am nañu am nañu xarañte bi loolu mooy mooy mooy première considération bi boo ko rapporté au Sénégal nañu takk ni li ma doon wax formation des formateurs am na 20 Euh, euh, entreneur sénégalais yoo xam ni bi fii FIFA soxla ay formateurs yu dem formé ji ñi ñuy ñi ñiy formé ji am na ci vingt yoo xam ni tànn nañ leen senegal loolu day wane ni xarañ na euh, li tax ñu wax wax loolu nag mooy tax ba dans l'organisation ak considération bi nga xam ni jël nañ ko léegi CHAN bi wax dëgg yàlla dëgg a neex yàlla mënuñu def lu dul lu dul tàccu bu ñu jógee ci loolu beneen considération bi mooy Sénégal toog na lu yàgg demu fa li tax demu fa mooy nit ñi dañuy fàtte diggante euh, équipe de club yi ak euh, euh, équipe yi nga xam ni ñooy jogante au coupe d'Afrique yi par exemple boo jëlee coupe d'Afrique des clubs champions club champion ñun boo seetee am na ay jamono dañ ñu daan éliminer li tax ñu ñuy éliminer mooy d'abord benn équipe yi nga xam ni dañ daan gañe coupe wala championnat war a dem représenter ji Sénégal équipe bi gagner du bokk ak équipe bi nga xam ni mooy dem représentation parce que euh, loolu c'est la rançon de la gloire parce que li ñu takk mooy ki nga xam ni moo gagné coupe wala moo gagné championnat euh, joueur yi gën yi gën a baax ci ñoom la ñu nekk donc tànneef lay nekk bu ko defee équipe boobu dañuy jël joueuram yi ba nga xam ni euh, pratiquement équipe bi dootu fa des dañu jël kaawu Casa Sport bi muy représenté ji Sénégal bi muy représenté ji Sénégal en Afrique Euh, équipe bu Casa Sport bi nga xam ni moo gagné woon coupe ak championnat euh, meilleur buteur ba fa dem homme du milieu bi dem ak central bi dem bu ko defee équipe bi day diminuer ñu éliminer ñu. loolu mooy benn euh, en club beneen bi mooy au niveau CHAN li tax ñu daan éliminer compétition bi da doon placé foo xam ni dana fekk ñun suñu championnat jeex na. xale yi dem nañu ñu commencé defaraat équipe équipe boo xam ne du am compétitivité bii ci biir saison bi la ñu organiser coupe euh, euh, CHAN bi mi ngi nekk en janvier boo seetee Guinée bi ñu doon éliminer ñun ñoo ko éliminer euh, Côte d'Ivoire daf daf ñu daf ñu nenni woon presque mais ki ñu jëkk a taseel Côte d'Ivoire la looloo tax ma ne nit ñi nañu considérer d'abord suñu championnat local bi championnat championnat bi championnat bu am niveau la mais malheureusement muy Pape Thiaw muy muy Koto mi fa mujj a dem muy ñeneen ñi ñu yoroon équipe bi éternel recommencement lay nekk cest à diir boo defaree sa équipe presque équipe bi nga xam ni mooy dem mooy dem euh, compétition mooy def ba kii yi euh, euh, éliminatoire yi équipe boobu du mooy dem et c'est valable pour cette équipe la parce que équipe bi ñi nga xam ni ñoo defoon éliminatoire yi équipe bi am na ñu bëri ñu ci wàññeeku les deux meilleurs buteurs sont partie meilleur buteur bi euh, euh, euh, Bouli Junior la ak booyu Casa bi ñoom ñaar ñëpp dem nañu booy Albert moo nekkoon capitaine bi milieu de terrain dem na ñaari joueur jàmbaar yi dem nañu benn benn benn joueur benn joueur gore arrêt central bi dem na teewul am nañu représentativité waaye li may gën a naw mooy formation des formateurs ak centre yi dalay may nga mën a dem regroupement lu yàgg a yàgg yaakaar naa ni ci waajtaay bi ab Thiaw euh, dafa ratissé large daf daan jël par 30 joueurs bu jëlee 30 joueurs bu 30 yooyu jeexee mu jël yeneen ba nga xam ni mujj na téye équipe am et puis def ay matchs amicaux yu bëri li ko may loolu mooy boo seetee fu mel ni Anaba fi ñuy fubale équipe nationale joué na fa ñeenti yoon. joué na fa match amical joué na fa ñaari match amicaux joué na waat na fa tey la fay joué waat muy ñeenteelu matcham sur le même terrain euh, looloo tax ma yaakaar ni ci pré c'est une préparation intelligente mooy. fi ma jëm ana baalaa nar a dem football yi xaaral ma dem fa football fa match amical mu def fa def 2-2 contre Algérie euh, fo euh, li nekkoon suñu force tamit ñun mooy suñu défense euh, parce que boo seetee léegi Pape Mamadou Sy moo moo moo moo góor fi mu nekk te Fati champion d'Afrique la bu ñu fàtte ni moom dafa demoon championnat d'Afrique loolu moo lay won ni du point de vue potentiel joueurs yi ñu am wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla moo ko mën a may moom mu may am xale bu mel ni Fati nekkoon nekk champion du Sénégal vainqueur de la coupe du Sénégal dem coupe d'Afrique gagné ko nga mën ko mettre sur la touche ça veut dire que la concurrence est très poussée à ce niveau là euh, probablement équipe bi euh, gëm nañu nii peut-être bu ci changé xëy na xëy na Moussa Ndiaye mooy ñëw seulement euh, parce que euh, li ma jàpp mooy su fekkee dafa bëgg a Euh, li Pape Thiaw def mooy mooy prudence de début mooy xamul woon approximativement quel est le niveau de réaction de not équipe nationale moo tax mu prudent woon mais bi mu demee ba ci biir match bi il a osé offensivement looloo tax ñu ñu gagné Côte d'Ivoire xam nga gagné Côte d'Ivoire euh, lu rëy la mais c'est significatif parce que nit ñi par rapport bu ñuy wax championnat Côte d'Ivoire di wax championnat Sénégal dañoo takk ni championnat euh, Côte d'Ivoire moo gën a kowee championnat Euh, Sénégal. daf koy diviser waaye euh, comme commencé nañu xam nga euh, li ma lay yëgal mooy ñooñu duñu c'est pas des philanthropes mooy fa ñu yaakaar ni moo gën a dox foofu la ñuy dem gëm naa ni bu Sénégal continuer nii muy def nii ñëpp képp koo xam ni yaa ngi topp toppatoo football da nga daw da nga daw ñëw Sénégal parce que li Sénégal di def wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla dal na xel. Ouganda la ñuy taseel avant loolu 16h am na benn match diggante ko di war a presque. Euh, euh, ku ñu dóor nga ñibbi li ma jàpp mooy Ouganda dafa match nul mook euh, Éthiopie Côte d'Ivoire dañ ko gañe tey ku ñu gañe xëy na sax mën naa takk nii Congo bu ñu ko gañee day ñibbi parce que dafa am defet dafa ma dafa am match nul kii kii tam dafa dafa Congo tam dafa match ñoom ñaar ñëpp dañoo match ku kuñ ci kuñ ci gañe fi mu ne ah oui da da nga des une dernière chance parce que comme dañoo ni loon am na un point même bu ñu la gagné tey un point bi dafay des en fonction des configuration parce que da nga fay nekk di wax bu kii gagné kii danga naan bu ma dem bu kii gañee kii su ma gañee damay am 4 points nangam nangam looloo tax ma yaakaar ni euh, match bu nar a metti la match à à à tranché parce que euh, bu ñu fàtte ni Congo ci favori la bokk Côte d'Ivoire euh, niveau footballam ci liñ ko takk au plan dañoo jàpp ni ci ñi gën a kowe la bokk loolu tax ma yaakaar ni premier match boobu tam dana metti dana tàng dana metti sunu match moo ciy tegu ñu nag Ouganda Ouganda xam nañ leen euh, football euh, euh, anglophone la ils sont durs au mal ils sont disposés à l'engagement et puis ils ont beaucoup de rigueur ils procèdent par balle longue ñaari alternative moo ci mën a am ou bien nga contre le porteur du ballon wala nga romp diminuer la distance entre la dernière ligne défensive et le gardien de but bu ko fa defee ñu mën ko jël je crois que euh, Pape Thiaw comme il le disait tout à l'heure mooy am na approche sur cette équipe là mais euh, gëm naa ni il va aller attaquer offensivement parce que boo seetee ni nga xam ni mooy élément yi mu jël ak disposition bi mu jël c'est-à-dire sur un 4-3-3 avec une une euh, une pointe haute euh, certainement ce sera Moussa Ndiaye gëm naa nii il va aller chercher la victoire parce que euh, li nekkoon force su Sénégal c'est d'abord la défense euh, euh, on n'a pas pris de but contre la Côte d'Ivoire benn occasion la ñu am mooy bi ñu dóor ci ci ba ci poto bi loolu la bala ngaa am équipe nag da ngay am une d'abord une grande défense système défensif je veux dire et un grand gardien de but parce que loolu boo koy set sax da ngay seet ci équipe yu mag yi si tu prends par exemple le Real Madrid qui est allé la Coupe un grand Courtois pour arriver à ce niveau là il est vrai que ñii dugal bii nañ ko dugal mais kii war a jàpp bii na fexe moom ba jàpp ko looloo tax ma yaakaar ni on va aller vers un match âprement disputé mais euh, il faut plus se cacher derrière not petit doigt Sénégal fi mu ne ak loo mënti nëbbutu nëbbutu dañ ko jàpp ci favori yi euh, euh, gëm naa ni avec l'organisation euh, du Sénégal avec le dispositif du Sénégal parce que tout le staff est là-bas quand je dis tout le staff mooy du directeur technique national jusqu'à Pape Diaw mooy ku nekk da nga indi sa xalaat ku ne da nga indi sa xam-xam euh, avec un 4-3-3 en en en bloc médian haut euh, en principe on devrait pouvoir s'en euh, s'en sortir. Père analyse bi rafet na rédaction Sénégal 7 jëm na def benn classement mais si biir classement bi Ilimane Cissé lañ génne teg fa à la place de Moussa Ndiaye en pointe haute Moussa Kanté bu Dakar sacré kër ñu génne ko teg fa Papa Diallo mooy attaquant bu nekk génération foot pour ay percussion am bàyyi Cheikh Ibra Diouf ak ak Malick Mbaye la nga naka la nga laka nga xalaat si classement boobu. waaw classement bi baax na waaye gis nga euh, si tu te mets dans la peau de l'entraîneur quand il tient son équipe il ne peut pas apporter des modifications aussi profondes d'un match à l'autre li ma defee mooy euh, un garçon comme Moussa Ndiaye euh, il s'impose aujourd'hui parce que gëm naa ni ni mu commencé noonu lay démarrer plus simplement euh, Moussa Ndiaye à la place de Eliman euh, euh, chambouler sa équipe complètement gëw ma ni entraîneur dana ko def ci compétition bu rapproché ni nga xam ni match yi dañoo tegaloo sauf en cas de force majeure c'est-à-dire terrain bi imposer la ko d'une façon ou d'une autre mais euh, euh, ça se tient un peu boo seetee euh, joueur joueur yu baax Euh, li koy indi mooy formation formateur yu baax ak formation bu baax équipe yi léegi nii boo seetee ku fi jógee Sénégal boo demee dangay nekk titulaire immédiatement ça veut dire que du point de vue formation du point de vue qualité de joueur euh, nos joueurs sont bien formés et, et sont techniquement tactiquement et physiquement je euh, gëwma ni entraîneur dana dem aussi profondément euh, d'un match à l'autre il, il a côte a il un match Le match s'est terminé par une victoire où il a eu à deux changements, euh, deux changements de jeu et un changement euh, technique. gëm naa ni il s'en tiendra là peut-être il peut sortir un joueur parce que Moussa Ndiaye s'impose mu indi Moussa Ndiaye mais li ma defee mooy du chan du changer du changer fondamentalement équipe bi. oh Djibril Diarra dañ dafa dafa bëñ bi day metti euh, effectivement il l'a reposé mais d'après les échos en tout cas ce matin. euh, euh, les échos qui me sont parvenus euh, il sera il sera il aussi la gëm naa ni il ne va pas chambouler soon équipe fondamentalement. mais père gis nañu Sénégal dafa am problème pour dugal ay buts si match de préparation yi bii ñu dugal si ay bal arrêté keroog tamit si bal arrêté Lamine Camara Moussa Ndiaye ñoo dugalaat ko naka nga gisee loolu équipe boo xamante ni day dem compétition mais dafa am problème pour dugal ay buts. dugal bii nag dafa jafe. c'est-à-dire boo am nañu occasion yi pour dugal ko dugaluñ ko euh, li koy wund mooy euh, d'abord bal bi ci kan la ñëw parce que équipe bu xësee liggéey ba nga xam ni génn na kenn créer occasion bi duel la entre moom ak gardien bi but bi euh, kooka nag bu ko ratee mënuñu ko reprocher équipe bi mën nañu ko wax ne ko tu n'as pas été efficace parce que efficacité il faut être def efficace derrière mais il faut être aussi efficace devant li tax ma yaakaar ni il va faire partir Moussa Ndiaye mooy tey dafa takk ni euh, il va aller avec peut-être au moins quatre ou cinq éléments offensifs euh, il est vrai que euh, euh, Muntaro Baldé le gar l'autre garçon Sané a pris sa place mais li ma jàpp mooy à un certain moment il a voulu plutôt profiter des qualités défensives de de de de de Sané au lieu de Muntaru parce que bu fekkee da nga nar a attaqué ji au plan offensif à mon avis Muntaru Muntaru meilleur mais euh, c'est dans c'est dans quatre heures de temps je suis persuadé que euh, il va pas chambouler son équipe mais que aujourd'hui avec la sérénité qui est revenue la confiance qui est revenue parce que victoire loolu lay jëriñ c'est dans la sérénité c'est dans la victoire que l'on parvient à à corriger c'est-à-dire ni ki ngay corriger da koy nangu parce que day am xel mu dal nga ni ko man de su doon yow lii lay def su ma doon yow lii laay def et à partir de ce moment ngay corriger au fur et à mesure di continuer. ban reproche nga am ci équipe bi. Euh, le manque d'efficacité d'abord dans un premier temps dans un second temps. Euh, euh, la rigueur nécessaire quand on a fini de marquer boo dugalee bi ba pare immédiatement après il faut te mettre dans la peau d'une équipe qui est en danger malheureusement dans les trois 4 cinq minutes qui suivent qui en général il y a un peu de de de flottement et loolu boo ko defee yenn équipe yi ça peut être dangereux mais du point de vue rigueur du point de vue sérénité du point de vue engagement euh, duel sur le deuxième ballon j'ai vu une équipe euh, solidaire et à aller vers la victoire maintenant il faudra être efficace efficace devant efficace derrière boo boo amee occasion il faut mettre ça au fond. lan nga jàpp moo chance Sénégal ci CHAN bi. Euh, ci CHAN bi c'est au fur et à mesure je pense qu'il faut d'abord sortir il faut se qualifier aujourd'hui et sawar quel adversaire on va avoir il y un niveau très très élevé CHAN bi na ñu jàpp ni euh, équipe yi ñëw équipe yu pare la ku ci nekk wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla non seulement da nga ñëw pour wane sa bopp parce que bu ci kenn Euh, euh, ñi nga xam ni yëpp ñooy toppatoo mbiri football ña nga fa boo xale bu mel ni Lamine Camara pratiquement day dem yaakaar naa ni bu san bi jeexee euh, certainement ñu ñàkk ko am na ñeneen ñoo xam dañ leen di ñàkk d'abord d'abord le marché premièrement deuxièmement sa nation et parce que en fait boo xësee takk maillot national amatul lenn loo xam ni dañ la koy indil comme motivation ça suffit comme motivation looloo tax ma yaakaar ni aller chercher un trophée c'est d'abord euh, techniquement, tactiquement, physiquement, euh, euh, engagement et tout ce qui s'ensuit, avoir une dose de chance. Parce que je continue à persister que, effectivement, ñun bi ñuy tase ak Angleterre à Coupe du Monde, on était très diminué. mais li ko indi mooy effectivement notre défaite contre la Hollande moo moo placé Hollande mu nekk mu nekk euh, premier de la poule ça ça veut dire que euh, on aurait pu euh, éviter l'Angleterre récupérer nos joueurs et avoir une autre équipe xëy na bu boobaa dana nekk neneen looloo tax ma jàpp ni les critères c'est d'abord être prêt tactique technique physiquement plus une bonne gestion de l'environnement mais nag aussi une très bonne dose de de, de chance c'est c'est c'est ce qui motive en général euh, euh, mooy indi trophée.